Sen Boutique naa la. maa ngi lay ziare di la jox sa wàccuwaay baax a baax a baax. naka màggal gi. màggal gi ñu ngi nii màggal nañ si jàmm ak salaam. yow koo màggalee. waaw man nag maa ngi màggal fii sama kër alom nga. mais mais Thioune yaa ngi toj réseaux sociaux yi surtout TikTok bi. non xam nga gis nga rek moo tax quoi. <laughs> alors inspiration yi mën nañ mën nga ñëwaat ci ni muy demee. waaw affaire bi nag ndeysaan daaw ci heure bi la ma dikkal muy euh, sama xarit euh, Mbaye Sapar Sapar fekk boobu mu seet sama benn mag jaar sama bitik ab mbokk sa góñ léegi nag bi mu paree ma ne man lan moo tax mënu ma ko woo fayee ko ko ndax muyu ma ko woon ma ko abon ci laa ko wooyee nag vidéo ko bu ma ko wooyee nag affaire boobu def rumeur ko waaw waaw léegi léegi loolu dem na ba tey euh, affaire bi ëpp ëpp loxo yi waaw dem na ba affaire bi ëpp ma loxo dëgg yàlla ñu dem ba dëgg yàlla ñëpp du ma seetaan yàlla dogal ma bokk tey ci tëtubéer yi nga xamante ni tey ñoom ñoo gën a mag bokk te youtubeur yi nga xamante ne doo doo tudd Touba gi doo tudd artistes yi doon na benn dégg na ma ñaar loolu moom ñu koy sant yàlla bu baax quoi. alors gis nañu ne actu actualité bi mooy euh, dañuy nominer euh, les influenceurs surtout au Sénégal yi gën a yi gën a yi gën a fës au Sénégal bokk na ci ñoom Abba ak yenn ay comédiens yow lu tax tudduñ la ci parce que. waaw non non loolu du parce que man instant nii yaakaar naa TikTok yàgguma ci te instant yii parce que maa ngi ba ba ci YouTube instant parce que maa ngi ci lu jege loolu. te bu dëgg yàlla yàgguma ci te man sama vidéo yàlla dogal na duma ko dugaloon léegi ni tey balaa am euh, benn waxtu day dem ay dix mille vues jëm kaw te loolu amul kenn ku ko am du kenn nag kuy tëg koo xamante ni mën ngaa dugal vidéo doo ko dugalee léegi nii bala am waxtu am 10 000 fii te man du ma dugalee rek bala am 2 minutes wala da nga gis mu yëg te kaw kaw. mais mais TikTok bi boo doon joxe benn euh, statut bu bu normal ci TikTok est-ce que jàpp nga ne liñ ciy def lépp jaar na yoon. non non jaarul yoon parce TikTok moom dëgg yàlla doo ci ñëwee da gis ñoo xamante ni dañu def lu baax da ngay gis ñoo xam ne dañuy def lu bon. ndax ñun tey li ñuy def ay kilifa sax dañ koy seetaan nax ñun suñ ay mbàkk mbàkk dañ koy seetaan ndax woo na ma am na ku ma mos a benn mbàkk mbàkk mag bu mos a isset am koo kaftiree ne ma sa waay kilifa gu mag ci yoonu moo moo sa vidéo ne ma nag fonkaatal li ngay def te xam ne ay kilifa ñu ngi lay seetaan man ay kilifa da may seetaan ay mbàkke mbàkke dañ may seetaan ba ci démb rek koo xamante ni Serigne Saliou sëtu Cheikh Omar Foutou Tall la dëkk Guédiawaye te kilifa la démb daa jógee Dakar ñëw ba Touba ndax sama jëmm ji seet si ma bi mu paree noonu la jóge waat continué waat dem waaw mais Thioune sama émission bi nga xam ne damay euh, dalal nouveau talent yi donc il faut ma invité la ci ci enquête 221 comme ça ñu gën a waaw kay dañoo nekk ci bis bi. te bis bi dafa xat te sama sama la barke Serigne Touba sama bis sama télé la waaw affaire dañ koy waaj yaa ngi dégg nga invité ko invité barke Serigne Touba muy Simon Avier yi ñoom ñaar ñii keroog Pikine laa leen fekk ñi ay jeune yoo xam ne nag dañuy ñi ngi TikTok nag doon ay gars fekk ñu teral ma wër na Serigne Touba ñaari may pour ñu jeexal parce dañu war a daam ñun ñëpp benn nañ ñun ñëpp ñoo far ñun ñëpp ñoo bokk lu ñu indi fii muy sant Serigne Touba sant Serigne Saliou bu dee nag da ngeen am si li ngeen nekk wax ji du bari day gàtt rek Zimo yeggaleel waaw mais sama gars yi waaw barke Serigne Touba ñun nag dañoo nekk ndaw di liggéeyal waaw comprendre nga am talent lool kon nu ko saa waay waxee barke Serigne Saliou Mbacke xaaruñu ku ñu jàppale lu ñu def ñoo ko jëmbali suñu bopp ñoo ko def suñu bopp barke Serigne Bamba te eh, eh, te nag gars yi ci kanam tuuti xam na ñooy Zimo Afia ak Thioune Boutique mi ngi def lu garaaw. kii barki Serigne Bamba Mbacke man ak Zimo dañ koy seetaan suba ba ngoon. barki Serigne Bamba parce que dana ma yéen dinaa leen jàpp ñu ne ko noo yow ñoo jàpp. munu ma dinaa leen jàpp ñoo nag mu jàpp ñu. barki Serigne Bamba ñu jàpp ñoom loolu dinaa leen jàpp. wuyu ma bu duggee waat beneen émission. ma jàppal la ay ndaanaan.